يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي سنگ بك مدينة حاطوا بحولي حبيب بالله قائدهم كالبدر في هالتين فالجمع غوغاء يا سيدي يا رسول الله شفعنا يوما ينادي المنادي بك مدينة بوكي بوكي دوين آه، دانيو في fas yéene sunu sët yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ñu fas yéene ñaanal seen maam at mu jot nag dinañu koy def ba ren nag e, ñu dig bis bi nga xamante ne si la ñu war a def ñaan gii dimanche kàddu yi may wax nag maa ngi ko jële ci ma njaay Ndoye ak ñi nga xamante ne samay rakkal lañu ci biir kër gi ak samay doom ak samay sët ah, kër gi nag bu ngeen gisee moo yaatu nii toll nii ca mag ña la woon ka ca jëkk mooy bay Bandiara Ndoye ka ca tegu muy sama papa di sama waajur mooy Sini Ndoye ka tegu mooy Ali Mbaye Faye ka ca tegu mooy Bëgguma Ndoye ñi si teguwaat mooy Sini Ndoye mu ndaw doomi bay bàñ njaru yàlla nag baaxee na nun waa Ndoyeen la fi mag ñi bàyyi woon ba léegi ñu ngi ci ndax mag ñi dañu fi bàyyi woon ak déggoo ak jubboo ak toppante loolu nag ba fi nuy wax ak yéen jógu fi ñi nga xamante ne itam ñoo di sunuy rakka toppa nañu ci ginnaaw nun ñi nga xamee ne nooy mag ñi desend fi ñi nga xamante ne it ñoo di suñuy doom toppa nañu ci ginnaaw it xale yi ba tax na problème bii mu mën a deme nii at mu jot nag ñu def ko man nag maa ngi sant yàlla di julli ci yonant bi dellu di sant waajur yi ndax ñi nga xamante ne it ñoo fee nekk di ay mag Baye ma Njaay mii moom lañ fi dese mooy sunu waajur moo nu jur ndax gisatuñu sunuy waajur waaye moom moo fi nekk moom lañu gis ginnaaw si gi loolu itam ñi nga xamante ne tey ñooy mag kër ñi si jigéen ñi Maram Jongo Faatu Fay Binta Njaay ak maram jigal ak nen na caw ak fandooy ak euh, daba daba kandooy ak nduura jóob ñooñu ñoo fi nekk tey ci ëttëb mbot bi ñu di wax ndóoyéen ah yal na yàlla mu tëli lépp ndax nun jàmma ja ñu fi bàyyi woon ak doxalin woowu ba léegi c'est la ñu nekk ba ak fi tay ba sunuy seut taxaw di taxawal li at mu jot kont nak ma ngi len di nuyu ma ngi len di gërëm ma ngi len di ñaanal yalla yalla nañ ko yagga di def tan fekk ko nun ñep mu def buntu wërsëg bu ubbeeku kon nun ndóoyeen benn bopp lañu xuloo amul ndóoyeen xeex amul yeen jamm rek am ndóoyeen te jamm ji moom la ko andoy band campé woon ci kër gi ak njabootam gépp njaboot gi nag yàlla def na bés ni ki tey ah ñi nekk ñëpp samay doom lañu samay sët samay jarbaat jàmm rek moo am ci nun doo amuñu benn wax ba salte amuñu jëf ju ñaaw ndooyeen li muy réy réy doo fi dégg amul ndooyeen xee amul ndooyeen man mii nag daanaka maa maa mag ñëpp ñu fi toog def na ak ba wër na mu jeex jërëgeen jëf nag jërëgeen bisimilahi rahmaani maa ngi nuyoo jotaay bi li ko waral muy sunu ëttub maam bi di àndoy bànd mi sunu kilifa gi di Baye Mandiaye ka doon wax sànq man na ne ne moo topp ci ëttub do ndax mo top ci Baye manjay bon lu mu wax lu ne waxu Baye manjay la manjay te mu wax na la muy wax ginnaw yalla ak bi mom la fi yàlla teg eh, nu am ci mbekté ñun ñep ndax sédi bu ñu togué ba ak initiative bëgg a la seeni maam doon def yalla mo teli yene di wax na góor gi itam yalla na fi yàgg te wër ดินนี่เสรียบยามมาเกษรดักยามมาละตามบาละเตสดามยามมาลงสองละมวยอ่ะเอตบินได้เอตบุรีอำนาจะลมาจะคำมันก็ว่าควายลมาจะคำอุลไคเนกาเนโลมีเงาขำเมนเทนมวยเชนดักมันนั่มาเชอุปคำคำวายสมวาลุมัมอันโดยบันดาอำนาลมาจะขำคำอันโดยบันดาเนีักเลาตานำเกดบุรีเดบุเซลเปฟ ndax àndoy bànd moomu tey bu ma demee ba sa sa a wax ndax sama yaay ca meññe ba tax na yaa xottandooyeeg astu njaayeeg docceeg ñooñu yëpp ci la ñu bokk ci géño àndoy bànd feccee yaayi asan an ñooñu itam ci lañu koy rawati mañ yaay bon dafa mel ni Andoy Bande daal mooy kër gi e fàttewuñu kenn di wàllu kër gi ak yëpp ku fi nekk ku fi newul ëttum dooyen daal sunu ëttum maam la moo yaatoo nii sele nii bon donc dafa barkeel barke boobu bu ñu cay am na ñu fi ne am na ñu fi newul waaye nag ci wàllu jéegi kër geeg yooyu yëpp dañu toppante moo tuddee ku Maram Jong moom it ci ëtt bi la ñooy ndey xale yi te ko si aji binta njaay male itam ëtt bi la ak keneen ku cay tegu ba ay neen na caw ak ak ñeneen maram jigal ak yooyu yëpp muy ëtt bi ëtt ndóoyeen ak keneen koo xam ne dama laa fàtte ay ak ñooñu yëpp ci ëtt ndóoyeen la ñu bokk eh, may wax ne mbégte laa ci am di gërëm mitam jotaay bi ci lima ci mën a lim ndax mbëggee ngeen ne toog mbëgg ndooy papa ndooy ñu ngi toog feggoo seeni rakk ay baaba ak ñooñu yëpp ñoo bokk groupe bi Aliou Ndooy ñoom itam ñoo bokk groupe bi ñoo bokk li ñuy seet ñoo bokk li ñuy def e, yàlla na ci ngërëm wàcce yàlla na yàlla guddal seen fan ndax dañu bëgg a wax ne kilifa mën naa dem waaye fekk demul parce que lay continuer continuité bi la koy andi mooy la koy dundal mooy li fi ne moo tax jaboot am na solo barke yàllaa ca def la mu cey def asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu di leen nettali lu nu fekkewulu tëjale ko ci mag ñi dañ yaakar ne leer na ndax doon ko répéter ay yoon yoon yoon nu jëlee ci mag ñi xam-xam bo xani bi dañ ko denc ndax des nañ ko te lu mel ni xamoon naan dina ñew tuddu ngeen atum yeen tuddu ngeen yeen gep waye man fima bëgg laal ci diggante mag ñi fi nekkoon mag ñi fi nekkoon te jëkkewuñu woon fii ndax këru Ndoyeen gi àndooy bandam moo ko sanc jëli ay mbokkam baay Bandiara Ndoye la jëli ak baay Sini ah, ak maam Ndukura Fay kon te ñooñu dañu am ay waajur am fu ñu dëkk bis bi ñëw ñu war koo wax nag fi may dikkee moo di gorom defe naa juróom-ñetti kër ma fi mag te mag ñi dangal na ma ko ah, dama yaakaar ni ci mag ñi fi jiitu ndax gorom dafa def ay toxalit yu bari ñenn ñaa ngi jóge Gollom ñenn ñaa ngi jóge Kawur di Gorom 3 ñi ñu ngi goro jóge Gorom Sinthiaw ñi jóge euh, euh, Kawur moo cosaanul secteur bi yëpp foofu ndooy am dinaa leen wax ñaari ndooyeen ñi fi gën a meññ te yàlla bàyyi leen fi muy euh, Gorom 3 di Kawur ndax wax nañ ni. rëpp ndooy ak bën ndooy ñoom itam ñoo sanc euh, Gorom 3 bi ñu ko sancee nekk fi ba yàgg ñuy toxal ay feebar yu yu ndaw di leen topp bu leen toppee rek ñu dandu feneen bu leen toppee rek ñu dandu feneen ba yàlla def ñu am dëkkandoo ku ñu war a dëkkal muy muy Euh, góor gu ñuy wax sele sele ba mu delloo kajoor ca këram di yàlla dafa wax ne euh, ni leen man de gis naa fu ñu mën a dëkk te yaakaar naa ni sunu jur gi foofa foofa rek la xeej te waxtaan naa ak rappandooy ak bëndooy ak ak daw ndaw ndoy encore ah bi ñu ñëwee dellusiwaat ak seeni nag bi ñu ñëwee dellusiwaat ak seeni nag ñu dalal leen waa Gorom 3 yooyu ñoo leen dalal nan wax li nga xam lii moo amoon ba ñu leen dalalee jox maay ndooy jëkkër mu leen joxe jëkkër ah, jëkkër jooju nag moo meññ waa njóobeen fële ca tool layti ñang ca guy gu mag googee ba nga xam ne bii yàlla def na doom jooje mu ngi tudd maay ndooy maay ndooy ah moom moom la ñu ci njóobeen ñu jur ci jogale maay bi ñu juree jogale maay waa kajoor jóge wat kajoor ca dëkk bu ñuy wax kër Amady la ñëw di leen wër ba gis leen ñu daal di waaw yen ki ngeen di wër ba yendoog non laaju ñu leen dara de ñoñu nu ñu tuddu mu ne leen job, job ak temur job guddu job ak téemur job momu le ñu ne leen may nañ ko jabar de ndax jur gi ak yar bi ak teggini bi ko maye jabar guddu job, euh, lañu may jabar ji mu am ci dom ju ñuy wax jogali may job jogale maay Jóob moomu nag ah moom la wax ni moom la ñu waa Ndooyeen ah waa Njoobeen waaye ñi fi jiit ci goram ak Ndooyeen ñu ngi tudd ñi ma wax. ndax mag ñi wax nañ ni wax nañ ni bi ñuy wax. di di xool mag ñooñu ba ba agsi dañ leen guddi jóob wax dëgg yàlla may na nañu ko ab tool ba mu nga cab goram loolu mu andi turu goram gi guddi jóob may nañu ko ab tool ah ba mu ngay mu ngay gor nan ànd nag dem fi ñu dikk fii ci tool layti laajte bi ñu agsee ñoom ñu seen seeni bokk bàyyi seeni nag daw wuti leen ah te da kajoor fekk si nañu moo tax ba ganuk suba fi nekk ak ganuk ngoon ganuk suba gi nag wax nañ ne mooy dalal gu ngoon gi ndax moo ko fa jiit kon ndooyeen moo fi jiit ndooyeen moo fi jiit mooy ganuk suba gi njóobeen ci tegu nekk ganuk ngoon gi askan woowu bu ci kenn xas kenn ndax boole kenn boolewu leen yàllaa leen boole euh, euh, ñu ne leen géwal yi nag ne bala ñoo dem dinañu xam ñii sunu gore yi ñu laaj leen ñu ni ko njañ njañ baay biram ma yobbal ak baay biram baay biram ak baay taaw njañ faati maali maram dooy benjéem bi loolu de moo di say goro mu ne leen ndax am na keneen ku fi sant ndooy waaw waaw ndax sunu sunu sunu uh, sunu sunu jar uh, uh, doomi ndey ak sunu dom baay ñu nga ñu nga kunun muy ya biram yaasin ya xara ak taw gan ndoy mbar muy wonge kunun ma samb ndoy ak dulli ñeñ kon bu ngeen ma laaje ci lu ci lu mujjili duma ci mëna sori waye lu lu jëk li li sos lolu lepp bu ngeen mako laajon fi ba fajar may wax ngeen balmaq wa salam jamana day mom dafa def loo xam ni ñoo fekk ñu jataayoo soo xamlee seenub jataay ba ñuy dajee ba di fa jataayoo waaye nag ñépp ay bokki neen lañu ngir kër gii nu nekk kër gu mag la si gorom li mu nekk kër gu mag moo di ndóoyeen gi ak njóobeen ñoodi di gorom keneen ku fi nekk fi nga leen fekk waaw ngir ki nga xamante ne bii moo di maam Ndoukoura rafay moo sañc kër gi ànd ak maam Andoy Band eh, ab jarbaatam yàlla dogal ñu bokk fi nekk dëkk fi ba yàlla weddi maam Ndoukoura eh, Faye dem maam Andoy Band doon bi mu ko doonee Euh, soxnaam bi nga xamante ni bi moom la fi bàyyi woon yàlla jox na ci kaci yaari ñaari njaboot moo di Aram Ndoye ak Xott Ndoye Xott Ndoye moo di yaay Fatou Diop mii borom dëkk bi yaakaar naa ne jooju wax moom juñu mën a dégg la ginnaaw bu loolu wéyee ah, tey jii Baye Bandiéré mi nga xamante ni bii yéen ñii moo di seen mam ak bay siin Ndoye moom ah, mam Andoy Bande rakki maam Akura la bi nga xamanteni bi mam akure genn na adina ci goram da dem yital bay banjere ak bay seen indi len goram gi modi seen dik goram mam akure boba jamana mo mom goram toli ëmb goram yep mo len da bay waaw bay akure ndo sama rakki bay jele sen jar ci kërëm gogu fi la jido te li waral lolu boba mam andoy latir da dem ba doole ci njabot gi ci njar mu daal di dem eple ñuy dem njar jëli ko andi ko njaboot gi mu andi leen yor leen ci koram maam Andoy Latir ak ak njabootam am nañ fi juróom-yenti at sama bay Akura moom mu ngi juddoo ci biir kër maam ci biir kër maam maam maam ak bokk la woon ngir nit ñi dañoo fonkoon ak bokk lool ah ki nga xamante ni bii moo di bay Laati Jóob maam Ndoukouré Faye nit ak doomi ndeyam la tax na ba ñaari kër yi ñoo di gorom bu ku ci xas sa xas sa bopp ngir maam Gànna Njaay ak maam Biram Njaay yàlla dogal na tey ñu ngi dëkk fii ci gorom waaye ñoom ay waa diin lañu ngir maam Akan Njaay mi nga xam ni mooy waajiru maam Gànna ak maam Biram Njaay ak maam Maali Njaay ak maam Mbayam mu mag ak maam Mbayam mu ndaw ñoom ay waa diin lañu ba ñu fi bàyyi ko tiir lañ sancoon bi ñu sancee tiir li leen fa jële moo di colonel bi moo ñëw ni fii suufam la léegi da da leen fii da fii déplacé da di ñëw loti lotise fii gasal leen fi ak bënn indi leen dëkkal leen fii côté bii féete nii léppit it bi jël ko dénk ko yaakaar naa ni loolu eh, gone yi sax am na ci ñoo xam ne am na luñ ci xam bi maam gànn bii mu fi bàyyi ko yaay du jàll lii fi féete woon daanaka luñ si ñëw eh, eh, tubaab bi ñëw daaka si moom la koy séqal waaw kon loolu yaakaar naa ne xam-xam gu leer naññ la waaw ah gorom nag wax dëgg yàlla danoo yàgg bokk ngir eh, sama baay bu mu taan bàyyi koo njëgan ñëw gorom day toflo bay banjere booba bay banjere mom ak bay banjere way nak da kay toflo ñoy ñoy and bay Akouré rakkam mu ngi juddoo si kanam ak bay banjere mu di rakam euh, ñu bokk bay lolu ak bokk ngir bu jekkon bo amé mbokk mu neew doole da ngay dem jeli ke, yar ka ak njabootam bu démé be nga xamanteni bi ci gina ba am doole nak nga dal nga mu del mu wat ngir cheikh bokk ga di ko dox ngir fi mu nekk ah dañuy wax ni gorom turwa waye gorom turwa gi ñu wax gorom turwa moy gorom 1 ngir gorom kawur moo sanc lamanda gi moo sanc kër Demba Gala moo sanc ñaari diini moo sanc Mbambilor kon gorom turwa dekk le bo xamanteni bi tuuti le waye bu reeyl waaw ngir mam rippandooy ak bëndooy bañu bayiko jolof gorom gorom kawur lañu gorom kawur fi la Biram Ndaw Ndooy mi sànce diini Biram Ndaw mu ngi juddoo Kawoor gi bi mu demee ba mat góor ah, mu ne bàyyi man kat dama bëgg nga wan ma fa maa gor nge dama bëgg ay tool fa maa béy mu ne ah, Biram Ndaw fee kat néeg ndey la fee may jarbaata ka moom ba bëggee laa moom nag daxa ka uti xam nga jamono ji léegi ak jamono ji jëkk jiru benn mu daal di bàyyi ko dal di gaday dem diini diini Biram Ndaw fi college bi nekk fofu la fofu la fofu la dal bam fa defé ñetti wër di gor mam ciongan Mbàcc moko fi jëk fekk bam mu ko fa fekke da ñew ba jigéen ke dibi gi mu yoro mu di dal di kay diir ni tek mu nakala yo ko mu mu mu mu mu ko mu ne ko waaw ko ko mu doona way man ko man ciongan Coŋan mu ne ko waaw la wa nga doxam noor man ko xana is mu ne egsi bi mu egsi nuyoox moom jàmmanteex moom bi mu nuyoox moom jàmmanteex moom mu ne ko léegi day ma di gën daxa gàddaay nekk fii si àll bi te noo bokk ndey te man manuma laa muñ eh, dere seetaan ak wéetaayu léegi dama ñëw di la waaye nag dama bëgg nu waxtaan bala maa toog man ka nanoo waxtaane mu ne dama bëgg wan ma fi maa la gor ba ëllëgee say may sit say sit bañ a wuuf may sit ngir ba ma andi xaw la gor rek ba ëllëgee ñeen lépp ak moom kon say sit di la wuuf may sit tey jii eh, pénc mooma ku santul ndóoy santoo mbàcc boo ci xëccoo tooñ wala nga bokk si famille ba bokk waaye boo bokkulee si famille boo fekk tiiroo eh, tooñ te lii ma wax képp xaw ma ko xamul waaye ko xam di nga ngir maam euh, euh, maam Tongan mooma moo jur maam Mbisaan Mbacke moo maam Mbisaan Mbacke moo jur bay Mal Jéy Mbackeem campement mi waaw te loolu ak bokk moo ko ki nga xamante ne maam maa di maam Akan Ndiaye moo maam euh, góor gi Ndiaye ak maam Masamba Masamba Ndiaye ñoo ñoo ñoo bokk Baye Masamba Ndiaye moo jur moo jur. Eh, moo Touré Ndiaye moo Touré Ndiaye moo Touré Ndiaye moo jur eh, Ndiémé Ndiaye Ndiémé ma yor moom sunu ñaari maam ñoo bokk benn ndey te bokkuñu baay ngir maam Birane sek ak ma Sele ak Seneba Seck ñoo bokk ndey baay ñu jël maam Seneba Seck dénkaale njëkk ca kañ ak kër maam Gana Diop siis mu am yaa tabara siis Ah Ibrahim sis Ibrahim sis da hatte la de ñu jël Tabara sis dénkale ji ko te keur mamadoun gey mu tawlo fu Ami gey eh, tek ci Matar gey eh, tek ci asan gey asan gey mo jur mam Gunje mi eh, doomi gan gey ji di denc ki musa gey waaw te li ma wax day lo leer nañ la lo xamante li kenn man ci teggi dara ma ngi len di nuyu ci seen tour tur ak seen sante damay nap nabal rek daanaka li ma si xam wul ganna me de mom si ëpp xam-xam xana ci walu fayen ak ndoyen waye fayen ak ndoyen ak njongeen seen mam yi ñoo namp waaw ndax maam xaddi ndooy daana wax biram faal aawa faal maram faal biram faal ngala daax ngala moo modi yaay Imam bu reggé Biram Fall modi yaay imam Akura Biram Fall mom mom lañu tuddé sama bajjen Biram Fall mi yaay Ama Demba Jong maam Banjere bok ak maam biran seen yaay yi bok ndey biran Fay mi jur sama bay wa nee ma maam Banjere dañ daan tok fi mu ne maam ju moma indi goram gi ndax sa maam moma ma sa goram gele sa maam biraan moo ma yoroon sa gorom ba ma bàyyi di yee waa léegi tool yi nga xamante ne moo ko dagge pooti gorom siini caw ba pooti gorom gànn njaay waa fayee na ko moom waa fayee na ko moom ak waa Ndoye yéen lii maam Bandiere daana ma ko wax waaw <clears throat> maam maam Bandiere mu bokkee ak maam Birane Faye seen yaay ñoo bokk ndey waaw ndax Biram Fall la Awa Fall Maram Fall Ngalada Ngalada maam Maram maam moo jur maam Akura moo jur Akura Akura di bàyyi Bandiere ak bàyyi Sidi Ndoye maa àndooy banda jur bàyyi kale ma Njaay Ndoye ak baay aakura ak baay bëggul waaye lépp ñooñ ñoo bokk ndey ñooñ bokk ndey léegi bokk bokk gi dem na ba Mbàcceen Mbàcceen kër maam Maali Jeey Mbàcc ak waa Ndooyeen gi seen yaay ñoo bokk ñoo bokk waaw Mbàcceen ak Ndooyeen ak Fayeen ñoo bokk mel na maam waaw ñoo bokk mel maam si li ma si wàllu yaa faat fa itam sama wàllu yaa faat fa itam ah maa ngi si loolu ndax maam kii maam maam maam faat fay seega fay mi ko jur seega fay mi ko jur ak daw mbay fay ñoo bokk ndey ak baay maam seega jur fa sama yaa faat fay jur baay Ousseynou fay ak Ablaye fay kooku dee moom xaddi fay rek la jot am ak toom ji góor ji waaw waa xaddi fay waaw léegi ñi nga xamante ne noonu la fayeen demee ndóoyeen itam sama maam seega daa teel a réer ñu jël maam yaa bay dénk ka maam mu di lan ndóoy bi ñu ko dénkee maam mu di lan maa yaawee ñu dénk ka mu di lan ndóoy moo am sa ak amariyande ku ñu doon wax maamu di lan moomu bokk ak sama maam ami mbay ndey te bokkuñu baay ami mbay mi jur sama yaay mook maamu di lan ñoo bokk ñoo bokk ndey te bokkuñu baay waaw maam mbéyam mbéy nga nag moom mi nga xam ne moo jur ñooñu moo jur maam koddu <coughs> ndaw Jóob jur ngi sali Diop maami gànna loo maami gànna loo jur euh, jur maam mbéyam jur euh, na kii maam koddu ndaw koddu ndaw Diop <coughs> koddu ndaw Diop moo di joor Diop yaay aana Gueye waaw maam koddu moo jur léegi maam maam maam koddu ndaw ngi sali Diop yaay jaab bu a gaañu ñu jël ñu jël yaay jaaba booy sama maam Yaasin ñang jël yaay jaaba booy boole kax sama maam Ami Mbay di leen nàmpal nii la mbokk googu demee. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant ah ma si wax nag bariwul ah ndax man daanaka ñi toog fii. ci jigéen ni ci biir ëtt Ndoyeen bii fi mu nekk ni tey ginnaaw yàlla man ak ëstu Njaay moo fi nekk ay mag ñi ci ñi ci des ñëpp fi la fekk ah, bi ñu fi nekk léegi nag man da lu baax léegi laa si xam loo mën a wax xale yi fi ndewit topp sunu itam dañoo teg sunu ñàcc nu nekk fi nekk jullit di gone yu neex a nekkal mënuma cee sori fenn nag lu may ñi ma fi fekk léegi ma ma fi ñu di sunuy goro day ah dëkk boobu baax lañ dëkk nag noonu ñoom itam ñu neex di mag ñu neex a nekkal ah naa ñu nekk woon noonu noonu mag ñaar ñun ñii leen remplace ba tey noonu lu nekk si kër gi. bisimilah rahmaani rahiim. maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi toog yëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñaan tam lii yal na fi sax ndax xale yi ko fi organisé ay gune lañu waaye ñoo ko ñoo ko yëkkate ba mu sax fi nii ba ñu am interview bii di ñaan li tax ñu yëkkate lii muy ñaanal waa ñi fi jóge ñëpp yàlla yàlla nangu liñ leen di ñaanal saa buñ ko ñaanee rek yal na yëpp maase la waale armel la yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man nag wàllu yaan laa euh, daanaka ndooyee na ba góor gi ndooy moo ma ci boole ak sama doom yi ma fi jur ñu sant ndooy kon nag mënuma wax ci dëkk bi dara mais man naa wax ne mën naa wax ne ab lébu kenn gënu ko ndax ñoom day mel ni seen bopp nit seen bopp moo leen gënal nit ndax dama doon xool ci paa bi ma fekkoon ma mbay Ndiaye su gan ñëwee danaa yëkkati leen bool bi gën a baax ngeen jox ko gan gi dégg dugal leen ko ci néeg bi gën a baax kon lébu dafa bëgg nit ku fi ñëwee dañ lay teral daanaka yow sax yaay gën a am teraanga kon nag loolu laa si mën a wax ndax man wàllu yan laa waaw maa ngi ñaan si yàlla lii yàlla bu mu dakk xale yi ko organisé di ko def ba mu egg si fii tey yal na dem ba nekk ak gàmm te yal na leen yàlla may doole ba ñu màgg màgget comme ñooñu te lépp lu ñu fi ñaan suñu yàlla suñu borom yal na ko nangu maa ngi ñaanal ñu ma fi fekk ci kër gi yëpp yal na yàlla may leen jàmm te bu déwénee yal na fi ñaari ojaat jóge dem màkk man dem naa ba ñoom macha allah di leen ko ñaanal ci sama xol nag yal na ko yàlla def ba kër gi nag jaadu na at mu ne nit jóge fi yàlla na yàlla ku mu woowul doo dem yal na leen yàlla woo yéen ñëpp maa ngi ñaanal sama njaboot ak njaboot gi fi nekk yëpp jàmm ak salaam yal na lii sax bu baax.